waaw jërëjëf sëriñ Thierno li ci am solo rek moo di loolu wax ko li ci def nag ay cant rek cant rek la ak ñaan maa ngi leen di ñaan tàmbale ko ci yéen ñi nga xam ne yéen doon liggéey liggéey bi seen jëmmi bopp ak ñun ñi ko ànd ak yéen eh, wan gannaaw lépp ñëw fi yéen ànd koog yéen eh, lépp ngir eh, ngir sëriñ bi ngir bëgg a jariñu la ci sëriñ bi ñu ànd koog yéen yéen ñooñu nag ñooñu fi nga xam ñoo fi teew yéen ñi ko doon liggéey ak ñi ànd ñi ko àndoon yéen teew fi wan gannaaw lépp di déglu xasaayid yi lépp ngir sàkku ko ngërëmal sëriñ bi gannaaw bu ñu leen nuyoo ñu ngi leen di ñaan sëriñ Abdou Hakim mi teew si gii nga xam ne moom la fiy teew si jéego yi muy dox bu ñëw fii niru na ne gàtt na waaye jéego yu gudd la jéego yu jéego yoo xam ne dëggu rekk a tax mu jéego mu jéggi ko ak dëggal rek loolu rek fenn kon nag ñu ko war a jukkale moo leen ñu ñaan ñu teewlu te ñaan ci baaxu Sëriñ Tuubaa suñu doom sàmm ko te may ko wér may ko fa nu gudd may ko kattan bu mu yàgg liggéey la Sëriñ Tuubaa loolu maa ngi leen koy ñaan yéen ñëpp ngeen teewal ci ñaan ko di sant di sant di sant di sant suñu borom di ko di ko sant suñu borom di ko sant sëriñ bi waaw di ko sant nag bu baax di ko gërëm euh, la ca dolli ko rek moo di yéen ñii euh, jarul muy gudd wax ci ay wax bare waaye su ma li ma koy gàttale rek moo di sëñ bi moom dafa am lu mënta ñàkk te borom moo ko fi nekkal moo moo moo moom la nekkaloon li ñu borom moom moo ko fi nekk moo ko fi lu mu bëgg lu mu a doon rek su borom moom borom defal ko ko. lu mu mënta ñàkk rek boroom dana ko defal loolu nga wax léegi ci noonu noonu la ñu demee jóge université ak pexe yi nga xam ne defal nañ ko. ak jukki gën leen ci jukki loolu dafa dafa am nag seen doxin wii ñun ñëpp ko war a doxe pour pour gindi gën a dox yoon bi buñ ko gisee ci saayir mu doog ko doxee waaw waaye buñ ko gisul nit képp ku gindi ko te dog yoon bi rek la doxee mooy wan gannaaw adduna dëddu adduna jublu yàlla dëddu adduna jublu yàlla man na nag sa waaye nag ndax eh, yéen nii eh, loolu sëñ bi da ci dañ dañ dañu waaw lu mënta ñàkk moo tax yéen eh, mu doon defal ko ko ci seen waaye ak seen bàkk am na ñu ko ànd ak yéen nag ñoo xam ne xëy na saayir soosu amuñu liberté la hmm. waaye yéen a ko ànd ci ci baat yi ndax dëddu yàlla rek la dëddu dëddu rek la jublu yàlla kon eh, yéen tawfeex rek ngeen am eh, sëñ bi moo am lu mu na ñàkk ñu ñu ñu feeñal ko ci yéen muy seen tawfeex kon seen tawfeex rek la waaye ñun ñëpp ku jublu yàlla ku ne boo sañoon doo ko booleeg dara. ndax adduna bul benn njëriñ fitna dong ak i gàllankoor kon sant leen yàlla bu baax ñoo ngi leen sant bu baax ñoo ngi leen sant leen ñoo ngi leen sant Serigne Touba di leen sant bu baax a baax a baax a baax daw leen seen ak seen xel ba kat noonu dong la kat noonu dong la de noonu rek la daw leen ak seen xel ba seen xel ba kat waaw waaw raw rek raw rek waaw ñoo ngi leen ñaanal ngeen gën ngeen raw. li ñu koy ñaanal suñu li ñu ko bëggale suñu bopp di ko ñaanal suñu bopp waaye yéen ala kulli xaalin nag faw eh, ñoo ngi leen sant Sëriñ Tuubaa bu baax di ñaanal ngeen ngeen raw waaw loolu eh, ay kàddu rek yoo xam ne duma ko ci mën a ñàkk wax gannaaw loolu itam mbokk yi taalibe yi nu góorgóorlu nu góorlu rek te xam ne àdduna amul benn amul benn solo nit ki bu juddoo ba xam xam xam xam ne nday jolo càmmooñam dara warta doon yitteem bul ji fu seeni aw tegu ci yoonu jub dafa mel ne eh, li fi indi yonent yi indi fi téere yi ba ci alxuraan indi fi sëriñ bi ma des ko xaaj ñetti xaaj mu yomb lool loolu moo di daal mooy njub ku ne xam na njub safaana mooy dëng waaw la ca dolli ko mooy wii ci ndigal bàyyi tere loolu mooy diine loolu mooy lislaam la ca dolli ko muy bëgg lu baax bañ lu bon nekk ci lu baax di daw lu bon loolu moo di tàllu bi ñett yooyu rek la téere yépp ba ci alxuraan lépp loolu rek la mënoo koo gëstu ba fekk ci loolu loolu rek la mu gën a gàttal nag ñu gën koo mën a xam loolu rek la waaw kon nañ góorgóorlu ci gone yi teel leen yoon yi yoo woon yoonu njub góorgóorlu ci suñu kenn kàttan eh, eh, yett yooyu rek la yett yooyu rek la njub góorgóorlu ci sa lislaam góorgóorlu ci sa bi lépp ngi ci biir kon xanaa kay ñuy gën a xam luy jub ñuy xën a gën a xam luy lislaam ñuy gën a xam luy taalibe rek waaw loolu itam dund gi xaj na ci ndax loo gën a xam di gën di gën di defaru di gën di yokku di gën di jëm kaw loo ko gën a umpule di gën des gannaaw rek di gën di ñàkk solo kon foofu it foofu la it ji nekk dundu adduna gi nga xam ne waa adduna moom ci la ñuy daw def ci seen yitte def ci seen lépp lu dara li leen cee jëriñ suñu borom noppi na ci ñoom loolu ganaar yi sax bu buñ xëy xam nañ nañuy dunde njaayaan yi xam nañ nu ñuy dunde ndëgment yi xam na ni ñu dundee dund dund ko loolu moom suñu war noppi na bind tabiya la bind la. waaw bind la kooku moom ala kulli haal ku ko loolu moom dara. du dara yomb na li li li li am solo mooy mooy mooy mooy jéem a xam li xew. a xam li xew moo am solo. waaw xam yàlla. xam alaaxira fas yéene eh, eh, eh, nekk ci lu lay may ngërëmal yàlla nekk ci lu lay may mucc alaaxira loolu moo am solo li ci des lépp du dara yomb na. waaye kër kër kër yoo xam ne fa fab nga sa lépp def ko ci loo xam ne du la benn njëriñ waxuma la te ñàkk njëriñ la mooy moo ñàkk njëriñ nga mooy jàmm ja la ca def lépp musiba la ak i mbugal yu dul jeex ba kooku du dara jël sonn kon nag la nga xam ne mooy tabee nga xam bind la loolu amul solo dund moom yomb dund moom yomb na dund yomb na loolu loolu amul solo jël tëdd benn paal gannaaw ba loolu fee itam yàlla noppi na ci jaam bu ne lay wërsëgam yàllaa ko ko yoral fu mu nekk dina ko fekk ak moom lay cëram yàllaa ko ko yoral fu mu nekk dina ko fekk ak moom waaw bu fekkoon ne yombalu ko woon ba kenn ku ne mën a mën mën a garaa garaa yi ñu ngi dund ñaa yàlla ñu ngi dund ci àll bi sax ñoo gën a suur yi ñuy sàmm deen dina xont te loolu lépp suñu borom bu fekkoon te yombal boobu képp doyoon na waaye suñu borom ci boppam jaam bu ne mooy sa cër mooy sa wërsëg jërul sonn sabab lu rafet na waaw ndax mu nit mënut a toog nekk ci loxoy neen bu bu bu bu ko suñu borom dimbalee am am tawfeex bu gindiku def def def de jublu yàlla dëddu adduna waaw bu boobaa itam eh, eh, dëddu néew dëddu teewut a lekk teewut a naan teewut a sol mbubb teewut a nite waaye loolu yomb na li am solo mooy jéem a xam yàlla jéem a xam àllaaxira waaw tàmbali ko ci gëm wéral sa gëm wéral sa gëm ba gëm nga wóor wóor te te gëm gëm gëm loo gën a gëm loo gën a nekk ci lu baax loo gën a topp yàlla loo gën a def ci ndigal gëm gi di yokk waaye loo ko gën a sàggane gëm gi di gën a nii di gën a dellu gannaaw di gën a tuuti di gën a néew ba faf ñàkk sax waaw kon nu góorgóorlu nu yomb na du dara du yomb na waaye nag yomb na jafe na yàlla lépp ndimbal sa borom la yàlla nu yàlla gindil boppam gindi nu gindi nu ci boppam gindi nu ci sëriñ Tuubaa waaw waaw euh, sëriñ bi nun mooy suñ lépp nun mooy suñ lépp waaw ku am sëriñ bi am nga am nga sa borom am nga yonent bi waaw sëriñ bi mooy suñ lépp bañ na ko dëgg la dañuy wax ne yonent yi di wax malaayika yi sañ bi du yonent du malaayika waaye xejju boromam ba bu mujj ko def ko dëkkandoom xejju boromam bu mujj def ko dëkk dëkkandoom kooku noonu lan am mooy suñ kilifa kooku kooku am waaye nag nan ko nan nan nan nan ko sagal nan ko sagal waaw yàlla rek la bëgg sëñ bi guddal yàlla rek la bëgg kon nan ko sagal bëggale ko yàlla waaw waaw sëriñ bi nan ko sëriñ bi bëggul dal def lu baax rek liggéeyal boroomam rek waaw jaamu yàlla liggéeyal bo liggéeyal yonent bi muy loolu rek soxla soxla sëñ bi soxla leen kon nan ko sagal nan góorgóorlu ci njub gone yu tuuti yi xëy na gone mun a tëb tëb sax aw yoonu njub waaye njub bu ju ne ju ne tuuti rek daal di xam njub ak dëgg kon na xam ne njub gën ci moo waaw lu mu tuuti tuuti tuuti booy mu teel a xam ne njub a gën ci moom waaw gannaaw njub diine waaw nan lu si njub fas yéene ko liggéeyal Sëriñ Tuubaa mel jéemu mel na ni ni ni ni ni borom bëgg waaw sàggale ko ko waaw góorgóorlu suñu diine suñu lislaam suñu kem kàttan waaw sàggale ko ko waaw waaw waaw góorgóorlu ci taalu bi waaw bëgg lu baax bañ lu bon di def lu baax di daw lu bon waaw suñu kem kàttan teel la tax nu nu loolu loolu loolu lépp sëñ bi leen moom noonu am na sëñ bi leen koy defal sëñ bi leen koy liggéeyal waaw loolu lépp sëñ bi leen koy liggéeyal nan ko nan nan góorgóorlu yett loolu rek la li téere yi bari bari bari bari bari yu njëkk yi ba ci alxuraan loolu rek loolu rek leen loolu rek ko a jóg yonent yi ñuy bari bari bari bari la ñuy baax loolu rek leen tax a jóg sëriñ bi fendi li fendi yonent bi rek mooy yéen yonent yi rek moo ko fendi kon nanu góorgóorlu noonu lu yomb la waaye nag yomb na jafe na ndéem ndimbal yàlla rek la taw fee xam yàlla nonu yàlla dimbalil bundil boppam ci boppam ginduñu ci sëriñ tubaa boole nu dimbal nag ban man a sax ci jaamu yàlla liggéey sëriñ tubaa loolu rekk la loolu rek la jërë ngeen jëf jërë ngeen jëf ñu ngi sant bu baax waaw sëriñ Isaaxa mii yaakaar naa ne loolu li ma wax eh, mooy sunu rak dafa teeloon am jom lool am yitte ne day jàngi xam-xam boobu xam-xam rek la xam-xam xam-xam waaye teeloon naa bàyyi xel sëriñ bi ndax sëriñ bii la joxoon jébalu boppam ba mu daan dem waaw bi mu del see itam tëletul loolee loolee mu doon wut tëletu ko am na am na lu ko gën a ñor fi mu ne muy lii ma wax rek <laughs> waaw kon nag loolu rek ci am solo loolu rek ci nan ci nan nan ko xam nan ko xam rek nan ci yeewu te góorgóorlu ci du ñu yàqal li ñu li ñuy wut suñu na ci ñuy kër këree du dara du dara njaay yaa ngi dund ganaar yaa ngi dund njarax yaa ngi dund loolu <laughs> am solo loolu du dund lu nu dund dundee rek nii nii lii lii ñuy kër këree di wuti bu bëgg di wuti di di di di loolu yomb na du dara loolu moom moom dañuy dem rek mu topp ci noonu waaw waaw te la ci ayut la ci ayut mën na ko jëfandikoo duñu yàqal dara waaye nu buñ tal dara nan tal yàlla nan tal suñu borom nan tal alaxira na buñ tal dara nan tal alaxira nan tal suñu borom tal alaxira ah te sant yàlla sant yàlla sant suñu borom sëriñ sëriñ bi am nan am nan lu doy sëkk tey ëllëg waaw sëriñ bi doy na sëkk tey ëllëg waaw sëriñ bi doy na sëkk tey ëllëg kon nag nañ ko fas yéene nañ ko fas yéene liggéey liggéeyal waaw nañ ko fas yéene buñ ko liggéeyal rek am ngërëm bu ñu amee ngërëmam rek am na ngërëmal yonent bi am na ngërëmal suñu borom waaw nañ góorgóorlu bu baax a baax dëddu adduna dëddu adduna buñ ko dee wax noonu ni ma ko waxee woon rek doo doo doo teewut lekk teewut naan teewut nit waaye nag nga xam nga att ci sa xel ne adduna kat amul lu njëriñ sa ba rek la nga atte ci sa xel na nga atte ci sa xel na li la amal njariñ mooy mooy mooy mooy yàlla yàlla rek la amal njëriñ alaxira rek la njëriñ la nekk waaw nga nga atte loolu gëm-gëm loolu atte ko waaw xam ne loolu loolu moo nekk waaw loolu mooy dëddu loolu mooy dëddu waaw sa xel doo ci gis dara doo ci gis lu lenn lu am njëriñ loolu yàlla waaw waaw doo moom muccukaay doo gis benn muccukaay adduna tëgg kante ji doo gis doo ci gis benn mucc baay muccukaay bu mucc àllaxira rek waaw waaw loolu rek la waaw ña yàlla rek moom moo fi moo moo moo yor njëriñu jàmm waaw mucc yi àllaxira rek la rek te itam ala kulli xaal lii bu buñ jubloo yàlla góorgóorlu suñu kem kàttan fas yéene sax ci jaamu yàlla liggéeyal ko Sëriñ Tuubaa fas yéene sax ci liggéey Sëriñ Tuubaa jaamoo ko yàlla buñ ko defee texe gi fii la ñu du du du ëllëg du ni liggéey ëllëg dañuy texe fii di wéy ba ba ba ba àjjana waaw ña nga xam ne borom yitte yu rëy la ñoom ñoom te amuñu soxla ci àjjana ngërëmal yàlla lañ soxla waaye nan góorgóorlu waaw jërëjëf fee moom gën a yàgg lool waaw nekk fi ba amal amal na njëriñ jaam ñi lool waxuma la taalibe yi waaw